television Futur media mbokk yi jërë ngeen jëf nuyu nañu leen bu baax a baax sant leen gërëm leen dellu am mbégte ànd ak yéen ci soir d'info ni ñu koy defee waxtu wu nekk soir d'info tey jii ñu ciy dalal ki nga xamante ne jii moom mooy Basirou euh, Ba. Bassirou Ba mooy président bu collectif bi ñu tuddee aar sunu moomeel di collectif goo xam ne ràññee nañu ko ci réew mi rawatina nag ci bu taxawee taxawoo kon waa kaw gi jotee lu aju ci seen seen moomeel seen taxawaay li war ci ñoom seen àq ak seen yelef liñ ko ci faral di dégg muy moom di collectif gi mu jiite di aar sunu moomeel bari na. tey teewaayam ci télévision Futur Média ñu war a waxtaan ak moom ci tolluwaayu dëkk kaw gi nawet bi ñu jëm campagne bi nga xam ne moom ñu dënmal ak yu baree baree bari. Bassirou ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci soir d'info ci télévision Futur Média Mohamed ñu ngi lay fay di gën a am mbégte bu jéggi sa bos mën nañ ko waxee noonu waaye di déglu di nuyu képp koo xam ne mu ngi ñuy bàyyi xel ci TFM ak képp koo xam ne baykat nga rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci Arsène Mohamed li ñuy doore ak yow mooy campagne agricole bi ñu dënmal keroog ajuma ji weesu gis nañu conseil interministériel boo xam ne kilifa yi réew mi def nañu ko ci njiital premier ministre Ousmane Sonko ca waxtaan wa am na ñaar fukki dogal ak lu teg di mesures yoo xamante ne ji jël nañu ko fa ngir gunge ko campagne bi ci yooyu bi ci njëkk mooy wàllu koom-koom gi ndax nee nañu natt nañu lu toll ci cent vingt milliards suma jumul ngir dugal ko ci campagne ba mu jaar ci yoon annonce bu mel noonu bi ngeen ko déggee ban effet la leen def daf ñu neex lool ba maa ngi doon tooñ sa mbokk yi ma leen bu pooj dagonoon ñu mayee ko <laughs> waxuma sax milliards yi ndax milliards moom yàgg nañ koo dégg te du tax baykat bi di ko gis dafa mel ni dañu koy raxasee rek waaye dafa am lu ko laltaay lu jiitu seen wax mooy même bu fekkee milliards dina yokku tamit dafa laaj ñu xoolaat lañ bët ak aussi def ko ci dofin woo xam ne képp koo xam ne baykat nga loolu dina yegg si si yow loolu moo tax mu neex ñu waaye milliards moom yàgg nañ ko dégg Mohamed ñu ngi jógee ci 2019 ci 40 milliards ci intrant kese 2019 2023 ñu ñëw ci cent milliards alors que ci loolu kon yokku nañu juróom benn fukki milliards ci diggante bi moo ne day amul benn baykat boo xam ne mun na la wax ne yokk na dara ci côté intrant bu dee ci li nga xam ne jiw wi ñuy jox la dafa gën a tuuti ci liñ doon am gën a bon ba pare prix bi ñu ko doon jox gën a cher bu dee engrais bi gis ko dafa jafe dañ koy denc defee ko nu leen neex ba nawet bi weesu wala mu toll foo xam ne dootoo ko soxla yow baykat bi loolu lekk ngay tal ñu soor la woon naan kaay ñu jaay la bu dee machines yi ñu ngi ko doon amee ci 2019 jëm suuf jàpp 2018 ay 70 000 bi ñu yokkee milliards yi ñoom ñi ñu koy jaayee 95 euh, 000 donc ñu yokk si juróomi junne bu dee gert bi comme ni ma la waxee ñu ngi doon jaayee ñaar fukk ak juróom-ñett bi ñu yokkee milliards yi ñuy jaayee 230 francs baykat boo xam ne bu ñu la doon jox sa jiwu par bopp yaa ngi doon am bopp bu ci nekk 20 kilos bi ñu yokkee milliards yi wàcceel nañ la ba 16 kilos bu dee par carré nga doon am 100 kilos wàcceel nañ la ginnaaw bu ñu yokkee milliards yi au lieu nga am 100 kilos mais di nga am 80 kilos alors que milliards yi yokku nañu. mais loolu paradoxe boobu moom lu lu koy expliquer moom kay xëy na buy wàññeeku day fekk mu wàññeekoo ca kaw mais ca kaw bu yokkee muy budget bi. dafa war a feeñ ci baykat yi lan moo tax mu yokk ba pare fii wàññeeku loolu. waaw ni mu waroon demee mooy li nga wax parce que mbir moom bu yokk da nga koy natt ca ñi nga xam ne ñoom lañ parce que buñ lay nattal sa yëre ci yow lañ koy xoolee. Mhm. bu la jotee rek ñu waxtaan kala. Mhm. waaye ñun dañuy dégg milliards yi di yokk ba pare baykat bi di gën a sonn. loolu nag du lu ñu jaaxal parce que 2019 décembre 2019 def nañ benn forum bu mag Kaffrine. mu indiwoon ab ko def ci benn chambre de commerce mais ñu ne ko fa def ba dañoo mujj le deux la waroon am ñu pousse ci la trente novembre ba def ko ci benn ab hôtel. loolu bi mu amee am na benn député bu mag bokk CEDEAO extra moo njëkk a waxal boppam ne effectivement lii nga xam ne ñoom la baykat yi di wax parce que si suñu forom bi la génne woon. milliards yooyu ñuy wax demul ci baykat yi am na fu mu tuddoon ci ay bërëb yoo xam ne mu ngi fay dem mu tuddoon sax ay gros producteurs mm-hmm. ak su moomeel def annonce wane ne mu ngi laajte kan mooy gros producteur amuñ ci tontu ñu mujj bind tamit jox procureur ak OFNAC na leen gëstul leen ñu ñu xam dëgg-dëgg milliards yi ngeen di wax fan la jëm parce que ñun yegg surtout ñun tu ñun béykat yi ñoo ko wax hmm. alors depuis boobu ba léegi nag amuñu woon ci benn njeexital boo xam ne dégg nañ ko loolu moo tax gouvernement bu bees bi bu ñëwee ne ñoom dañuy lëñ bët li fi nekk dañ ciy sant yàlla du milliards yi ñu neex hmm. waaye lëñ bët ko ak def def lin boo xam ne dina fekk lu ñu def rek dana yegg ci baykat yi ndax nag Mohamed hmm. bul fàtte ne ñun aar suñu moomeel dañ mos di sonn mos di am ay noon ci lii ñuy jox béykat yi na yegg ci suñu def ay proposition sax jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy état wu Sénégal waaye dafa meloon ni nopp yu bon ñi la ñuy doxoon dañoo gëmul dox ku leen mere moom xay na ci taxaw béykat yi la leen mere mais ba tey ci mesures yi ñu jël bu weesoo cent vingt milliards yi ñu am yéene dugal ko ci campagne bi ngir mu gën a dox donc peut être xëy na sax am nañ yaakaar ci ne la woon dina woone ni ngeen koy waxee ndax 2019 la milliards yi commencé yokk mhm. soixante milliards lañ ci yokk te feeñul donc tey bu ngeen déggee cent vingt milliards dañuy toog di xaar muy yow di man di beneen baykat ak keneen ku am way juri baykat ndax dana feeñ ci moom mais ci mesure yi ñu jël également dégg nañu ci ñu ne bor yi nga xamante ne ji état bi da koo ameel opérateurs yi mhm. euh, yi woon deux mille vingt et un deux mille vingt deux ba deux mille vingt trois dees na ko fay loolu jàpp nga ne dana dana tax baykat bi gën a nekk ci aafiyam waaw lu war a am la parce que dafa bokkoon ci li nga xam ne moom la opérateur bi doon wax ne bu ñu ko fayul li nga xam ne moom mooy xaalisam ci la doon jaar di mel ni kuy xaw a kidnapping ki nga xam ne moom mooy état. Hmm. effectivement daf ko ko doon chantage ba ñun bokkoon na ci suñu sorte ak mbind yi ñu jébbal li nga leen ñii bu fekkee da leen yoreel xaalis jël leen ngeen fay leen ko pour baykat bi mën a libre hmm. nekk ci boppam parce que nag mënuñu bu joxee bu joxe jiwu jotee ñoom opérateurs yi ñooñu ci ëppale ak état bi waaye bu jënd jotee aussi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo sonn ci tool yi war ko bàyyi war ko jaay ji am ci xaalis ba pare ñu ñuy nag ndax lan opérateur bi ndax lan nee na ameel na leen ay milliards yoo xam ne fay ñu leen ko donc au mooy li xew ren effectivement ren état wu Sénégal dafa jël ñi nga xam ne ñun béykat yi fayee ko opérateurs yi maanaam ren état wu Sénégal dafa jëloon béykat yi fayee leen ñu ñun opérateurs yi dafa jëloon opérateurs yi yore leen xaalis amuñu lu mu leen lu mu leen fayee ñu ñëw ñu yokkal ñu benn dërëm ci prix gerte bu ci nekk mu doon lu ñu naqari loolu neexoon na expliquer parce que daf ne dañ na leen dañ ñu yoral xaalis dañ ñu koy fayee état amul woon lu mu leen fayee mu ne dinaa fexe benn baykat du gis boppam ci campagne bi léegi yéen dam leen ngay jëndee ju la neex léegi mënu loon ñàkk a yokku ndax coow li nu mu tolloon mm-hmm. mu jël dërëm moo tax suñu coordonnateur euh, euh, kii adjoint El Hadj Ba dafay wax ne ren na baykat yëpp xam ne mooy régime bi fi jógee état Sénégal au lieu mu dem fay opérateur seen xaalis waaye dafay jël ba béykat yi ñun baykat yi fayee ñu ko opérateur yi <laughs> loolu dafa neex expliqué ma wax la mhm. euh, ren ci li nga xam ne moom lañ xayma ñoom ci li ñu am ci li nga xam ne mooy tonnage bi ñu béyee ba pare wax nañ ne am nañ un million quatre cent mille et quelques tonnes la ñu wax boo ci génnee li nga xam ne moom lañuy ñuy fii ci réew bi ñu waroon jëndee suñu gerte téeméeri dërëm parce que jaay jaay daaw jaay nañ téeméer ba six cent loolu bu fekkee da nga xalaat li état bi yokku dërëm ñu kon diggante bi nga xam ne mu ñun waroon nañ ci jaaye cinq cent francs mu nekk deux cent vingt francs tonne bu ci nekk daf la jox minimum vingt quatre mille jëm kaw. alors loolu bi ñu ko calculé ba génne ko état wu Sénégal ren li mu lekk ci dal béykat yi nga xam ne moom la wax moom la ñu am mu ngi toll ci milliards yu takkoo takkatu mooy trois cent deux milliards neuf cent quarante loo xam ne yi la waroon ñëw état wu Sénégal fexe ba xuuf ko jox ko li nga xam ne moom mooy opérateur yi amul benn béykat boo xam ne gis nga boppam ci gis nañ suñu bopp ci traite bi nga xam ne am nañ sonn boo bëgg a dee ñu jël ko teg ko fële alors que dafa bokk ci ñu li ñuy wax mooy li ñu wax depuis ay at ñu ngi fi ay campagne yu uute mu ngi fi am milliards di ñëw te mos nga dégg rapport boo xam ne dafa épinglé wala ñuy wax ci li nga xam ne mooy ministre de l' agriculture à part ñaari semaines yi passé nga xam ne gouvernement bees bi mos nga ko dégg hmm. yow en tant que bés bu ne yaa ngi ci journal yaa ngi revue yaa ngi lire est ce que mos nga dégg ñu ne rapport bi épinglé leen li nga xam ne mos nga dégg mais euh, ci rapport yooyu nga junj lay ñëw ak yow hmm. euh, wax nañu ci suma juumul of nag la wala cour des comptes ñi ngi wax ci Euh, semence bu ñu subventionné subvention boo ko déggee mooy lu waroon a jor fukk état bi gàddu leen li ba mu woyof ci baykat yi mais ne nañu malheureusement lu ca bari demul ci baykat yi yéen ñi dul jug ci àll bi ci dëkki kaw yi mhm. defoon ngeen constat boobu bu baax wax naa la commencé ci suñu forum 2019 mhm. waaye dañ ca yemul ah su mu dafa bokk ci kuréel yi nga xam ne fii may waxee ak yow dañ ci dul kaf rawatina ren bu ñu dëgmalee fii ñu toll ne dañuy séddale jiw ci réew mi ñun ci benn xëy na dañ doon dem ci seko yi di vérifier mu amoon nag coolu lu ñun ak kilifa yi autorité yi mm-hmm. mais ay at ba léegi dañuy bind ay kayit jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi moo xam gouverneur préfet sous préfet na leen ñun ak su moomeel daañu ñëw saytu milliards yi nga xam ne ñoo ko moom ci suñu impôt lay jógee mu wara a yegsi ñun te gëm nañ na ñëwut dañuy dem ci seko yi mais bu naqatal boo xalaat dañ koy gis da ngay dem amul benn béykat boo xam ne sañoon na avant asumamel di exister dëgg-dëgg mu dem ci seko fi mu war a jëlee gerte bi ne sañ naa tekki saako gerteem di xool ndax gerte bi baax na wala baaxul gerte ren la wala gerte daaw la gerte bi poids mat na wala matul am na suuf wala amul suuf am na ngooñ am sa yoon nekku ci sañoo ko def da ngay jël force mbaa nga bàyyi loolu moo fa amoon ndaxte nag la fay xew mooy dafay am benn président commission dañuy wax ne commission commission boo koy dégg ci tur dafay complet mais si papier du dara benn ndaw fay nekk mooy tudd président bi ku ko fay yebal préfet wala sous préfet nitu kaw boo ñëwee que kii mooy président bi kan moo nekk si ginnaaw nga ne préfet la sous préfet mhm. boo ne ni mu wóor la ne commandant de brigade mu ngi sa côté mhm. donc li mu la wax yëpp da nga koy nangu mhm. ci lañ doon profité ñooñu nag dafa amoon benn xaritu bu xóot bu am ci diggante opérateur bi ak ki nga xam ne mooy président commission bi ba tax na baykat bi non seulement bu ñëwee dafay fekk ci pegg sako bi yëpp ay nit ñu toog di jëndat gerte bi dërëm la ñuy rawlante kan moo moom ñooñu le opérateur bi leen fa yebal da gis opérateur boo xam ne war na joxe 40 tonnes ci ab commune cinq tonnes lay am jàllar bi boo ko waa commune bi yëpp am li muy am mu yóbbuwaat lu mat trois tonnes parce que gerte ba baaxut baykat bi xam na ne bu ko jëlee du ko ji foofu lay toog ñëw da ngay gis baykat bu ñëw war a ñëw ci sako bi jël ci lu mat dix tonnes de village bu ñëwee dafay waxaale ñu ne ko gerte baa ngi na leen da ngay bëgg jël mënoo ko mu xam ne gerte bi bu ko jëlee du ci am dara xam na muy def mm-hmm. dañuy ñu ne ko kilo bu ci nekk état au Sénégal parce que nag état mayut ñu gerte daf ñu koy jaay même bu fekkee def ko subventionné. Hmm. da ngay ñu ne deux cent euh, deux cent trente franc la nga ne cent kilos yi dafay nekk vingt trois mille franc. Hmm. ñu ne la vingt trois mille yooyu téye ko sa poos léegi kaay kilo bu si nekk nañ la tegal fukki dërëm nga dàqante ñoom boo amee ful la am fit am cent franc cent kilos yi nga dugal sa poos dix mille franc dem moom wax naa ne chef de village dugg na ci moto dem jëli ji dix tonnes. ba 30 tonnes yéeg ci moto dem jëli ji tonnes yi toogaat ci moto bi indiwaale na tonnes yi parce que daf ko wanteer daf na ko xaalis bu yàgg te amul pexe boo ko jëlu danaa la force da koy jël mbaa doo jël engrais doo jël leneen mais parmi di jiw boobu ngay wax noonu mhm. ñun gerte bi la ñuy kërti kërti mais foo gis jiwu gerte am na yeneen jiwu yu ne ci suufam waaw waaw loolu jaaxal na ma parce que ñun gerte gi rek la ñuy junj dafa mel ne war na am dugub a yeneen ak yeneen mboq ñebe naajoo xaal bisaab et cetera yooyu dañ ko subventionné gis nga 2024 2023 2022. état wu Sénégal mu ngi defoon euh, euh, quarante 42 milliards ci jiwu gerte def 40 milliards 41 euh, milliards ci céréale bi ma lay wax. amul benn baykat boo xam ne mën na la wax ne jël na ci jiwu mbokk lu tax lu ko satisfaire wala basi bi wala leneen lañ cey ama ko bon dañ koy jël jox ko jur gi ba pare bu dee ne téeméeri baykat la fukki béykat yi jotuñ ci loolu la alors que milliard la ab coût bu gudd. baykat benn amul fit tey nga dem ci seko yi te dafa bokk yi ñu existe ren. amul benn seko boo xam ne di nga fa dem ñu ne la kaay nga génne sa gerte nga ñëw génne ko fekk bascule ci suuf bi. pour pourtant ñun bu ñu jaay suñu gerte bi dañuy génne suñuy euh, dañuy peese suñu gerte mais booy jënd gerte ci état ak ni opérateur doxalee du am bascule. da ngay gàdd rek yóbbu. da ngay jël yóbbu force. moo tax kilo yi ñu la bindal ca saako ba rek. mu mat koog mu bañ koo mat yow amoo possibilité vérifier. du am te booy jaay ki nga koy jaay day vérifier waaw léegi lan moo tax euh, ñàkk a taxawu googu noonu parce que ñàkk a taxaw laa ko mën a tuddee amaana état bi buy jënd am na ñu ko taxawu ñoo xamante ne dañuy exiger ñu peser ko. mais baykat bi moom bu dee jël amul ku ko taxawu wala wala dafa xamul yoon yi wala dafa amul lu ko war a mën a encadrer ba tax it mu am possibilité peser li muy jënd. waaw xam nga des booy booy booy booy booy seetlu dëgg da naan état dafa participer ci lii noot baykat yi dafa mel toujours dafa bëgg baykat bi de lot pour mu mën di koy jariñoo ndaxte boo ci duggagul mën nga xalaat li ngay xalaat mais boo ci duggee ku mel ni ñun nga xam ne xam ci lu bëri am ci ay menaces ci côté yëpp fexe ba état di xam lii xew xam lii xew laa wax de. Mhm. mais état mel ni ku fi nekkul. c'est-à-dire àttewut dóorul au contraire sax da ngay gis loo xam ne dafa li woon lii jaarul. Ah, nga wax ci daf ko moom lu xew yow. Ah, lu xew ba pare yow yow mi na ci dëgg. Mhm. wala yow mi foog yaa ne ci dëgg di dox yow la ñuy not yow la ñuy suufal loolu. su ma la joxee exemple ne na béykat dina ñëw koy génne gerteem te du ko peese. te buy jaay day peese nga boole ñaari baykat cinquante kilos ku ci nekk war a am vingt cinq kilos. Hmm. ñu sotti ko ku nekk du am ci ñoom dix huit kilos. Hmm? te poids baa ngi nga soor a dem segg génne lu mat ku ci nekk noonu lu mu gàtt kilos suuf. ci 18 kilos yi laa wax de. te yow 20 50 kilos nga jënd. nga soor a xolli boo boo xamee lay laxe ja mooy nekk 5 kilos ya donc la ngay am ci kemb la ñu wooyee jiw matul cinq kilos. te yow cinq kilos. te yow 25 nga waroon am. donc loolu état di ko xam ñu koy filmer di ko joxe di bind ay rapport di ko joxe ñu gis ko teg ci seen bët suuf yi fees dal nan ngay demee ci ab sako nga génne saako boo xam ne dafay def juróom fukki kilos nga lay ko génne ci vingt kilos suuf état gis ko waxuma foog de gis ko te waxul ñun la ñuy menacer ñun la ñuy tëj suñuy ndaw samay ndaw dañ leen di tëj ci sako yi di leen bunn xatal di leen saaga di leen def lu nekk. loolu nag ren dañ ci jubloon ci liggéey boo xam ne. mais loolu yéen constat boobu yéen a ngi koy yeggee ñi ko war a jot. parce que yaa ngi ne état est ce que yegg na fi mu war a yegg parce que li ngay wax ni euh, Basirou doy na waar trop. mais loolu loolu moo am fi mu mën a yegg mun nga ko wax préfet. yu bëri ñun ñoo leen di yëgal information yi xew seen gox parce que mënoon na ci ab gox yow yaay président commission mooy préfet wala sous préfet mm-hmm. ñu commencé séddaleem jiw nga ñëw sax yow même bu dañ la affecté foofu noonu ka ngay fal comme président de doo ko xam dangay ñëw rek jël na moo fi nekkoon ñu wax la nga jël mission bi continué ko gëstoo ko ñu commencé di séddale amul kenn ci ñoom koo xam ne di nga wàcc xool ndax gerte bi opérateur yi jox baax na wala baaxul ndax baykat yi li leen jox milliards yegg si na ci ñoom wala ci bariwul ci ñoom ñenn ñenn la ñu donc ba ñun ars moom ñuy dugg ci ay goox di leen fekk di leen jox information yi di waaw di leen defal seen liggéey mhm. ñi la ciy menacé nag te danaa la tëj doo leen dara baykat nangam ci ay kilifa laa wax ay sous préfet di ñu wax ñun te menace partout donc loolu bu fekkee dafa am da ngay comprendre lii am na lu xew ñun ñu ngi ciy jooy bés bu ci nekk léegi par contre benn loo xam ne moo gën a garaaw mhm. après yow mos nga gis chef de bi ñoo jël 30 tonnes yi ma la wax ba pare dem ñibbi ji te joxuñ ko benn rossi cest yi dire da ngay ñëw ni nga ñëwee jënd noonu ngay demee te dañ ne gerte état ngay jënd da nga war a def rosi mhm. léegi yow lan moo lay président commission boobu boo ñibbee ndax moom day def reçu boo xam ne dafay mandargaal ne effectivement li nga jël net moo ne ci reçu wala de moo tax léeg-léeg nga dégg kilifa ne ci sama arrondissement wala ci sama département 70 pour cent dugg si na fi béykat yi séddoo nañu 65 pour cent boo demee def sa enquête 10 pour cent sax jotuñu seen gerte. Hmm. ñenn ñi xaalis lañ jot parce que amul gerte ñi ci des jotuñu dara ñu napp leen. donc loolu moo am ci dëkk kaw yi ci côté séddalum gerte bi te ba pare li garaaw ah, li garaaw ah, ah. te mu ñii di ko seetaan mooy technicien yi xam nga boo demee ba tey baykat jiw bi muy dencal boppam la gën a óolu bi ko état di jox waaw loolu y a problème alors que technicien yaa ngi fi islam mu fi xam baa ngi fi mais ñu gën a wóolu suñu jiw moo tax nga xam ne opérateurs yi seen responsabilité bi tax ñiy laaj tey milliards yi asimuñ ko defuñu ko waaye dañ am ñu leen ci jàppale te mooy état man posé naa question naka la ñuy tànnee ki nga xam ne moom mooy opérateur ban façon nan la jiw gis nga opérateur li ñu déclaré ne ñoom moom lañ am ci tool hmm. buñ ko bayoon TFM du nekk fii mu nekk tool lay nekk <laughs> donc dañ koy déclaré par théorie par nangam mais amul boo demee ba war a jaay sax dañ lay not na yow doo jaayee prix bii ndax opérateur bi la ñuy sóoraale pour mu jënd sa gerte ci prix bu la neexut pour mën la ko jaayaat ëllëg jaay ko état alors que li mu koy jëndee ci ñun bu ci boolee suufoom bi am na bénéfice bu yàgg milliards yi ñuy topp état yëpp bénéfice la bu yàgg. mais kon xëy na wax yi ñu dana diis mais daanaka ñi ñi yàq campagne bi aussi ñoom it ci lañ bokk. non ñooy ñooy ñooy ñooy acteurs yi. très bien ñu ñëw ci beneen ponk Basirou Basirou Ba fàttali ne yaay euh, président bu collectif Aar Sunu Moomeel tey jii ñuy waxtaanee wàllu campagne wàllu mbay mi ak baykat yeeg dëkki kaw yeeg dund gi ci kaw gi euh, ci mesures yi ñu jël keroog ci conseil interministère bi jëm ci campagne électorale euh, campagne agricole bi ñoo ngi ciy wax ne léegi semence yi ngir mu leer muy jiw war a dem ci baykat yi dañ ciy dugal larme bi ñu ne at également danañu fexe nuñ ko digitaliser maanaam fexe ba way xarala yi dugg ci ngir fu nit mën a nekk mën di am information bi war ci jiw wi ak fa mu toll ku ci nekk ak la nga jot ak la nga jotul euh, jàpp nga ne loolu dana mën a nekk. waaw déjà jiw yi jógee ci soldat si loolu du tiital baykat. Oh, déedéet parce que Astou Moomel bi nga toogal nii tey ñoo defoon proposition boobu depuis deux mille dix neuf. mercredi dix huit décembre deux mille dix neuf lañ defoon proposition boobu. muy que ñu jox ne. ñun gannaaw bu ñu lëñbëtee ba xam mbir mi degré xóotaay bi dañ ne lii ñi ko organiser organisation banditisme lañ ko defee muy séddaleem jiw mhm. parce que dañ ko def nag séddaleem dawlin ci ay loxo fu mu dem takk fa mhm. te ña ko war a tàkkarte ñoo gën a takk ba ku fa nar a dugg ñu rey la ñaata yoon la ñu am menace ñu naan ñu boo leen duggee ci gerte bi da di dee dañ leen di nangam mm-hmm. ndax mbiru or la mbiru jinne mais ñun ci moom lañu am ay béykat lañ mm-hmm. gerte boo demee ci bassin arachidier bi ñun gerte lañ gën a xam mais loolu buy reyee kon daf ñuy rey léegi nag buñ waxee ay milliards mu ngi ciy def ñu ne nañ ci sóobu nañ ñu rey donc mm-hmm. ñu gën a sonn ci réew mi aar su mel daf ci bokk man ak samay ndaw yëpp alors loolu moo taxoon ñu ne lii foo gis nag ay bandi dañuy am yaakaar ne toujours ay soldats a leen mënal dara <laughs> ñun loolu taxoon ñu indiwoon loolu teg ko uh-huh. léegi nag dégg nañu état bi fi nekk jël na ko wax na ko uh-huh. mais ñun bëgg nañ xam nag wax dëgg yàlla ci ban façon la armée bi di taxawee ci ban ban maanaam naka lañ ci nekkee parce que ñun liñ joxewoon voilà ñun liñ joxewoon mooy dañ ne ñoom nañ bokk ci commission nationale bi uh-huh. bokk ci fi ñuy tànnee xool lan mooy dëgg-dëgg jiw ndax nag ci diggante bi ñoom dañ leen defal formation ñu xam jiw wala xamul jiw parce que ab ministère boo na ko temps ciy ton lañ la dénk na nga ko jox temps ci nit joxe ko nii loolu rek lay def. Mhm. mais est-ce que xam na lan mooy jiw. effectivement est-ce que xam na lan mooy jiw moo tax ñu proposé ñun ne li ñu am ci ay commission na soldats yi nekk président commission yi mais nañ jël organisation paysan yi. dem boole leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy techniciens yi. ñu xool dëgg-dëgg leen mooy jiw. surtout ça ndax nag ay at ñun dañuy dem ci ay seko fekk fa loo xam ne dañ koy wooye jiw buñ certifié ñu def fa ay vignette vignette bi mooy mandargaal ne jiw bii. temps nii la tudd mhm. waaw nii la tudd dañ koo labourer naa nga mag naam extra mais ñun ci suñu gëstu da ngay gis ba fii ni tey mhm. am na ay seko yoo xam ne boo demee tijji ko fekk ñu ngi fa teg li nga xam ne mooy vignette bi muy xaar gerte boo xam ne xamagoo foo koy dajalee yaa ngi ci luuma yi di ko jënd <laughs> loolu est-ce que wér la nan ngay gisee gerte boo xam ne dañ ko certifié ñu ne technicien ñoo ko certifié nga ñoo sotti ko boo ko bësee ba ma tuddee ko sib si mhm. muy génn ay sax di wale nga ciy génn suuf bu bari nga ne dañ koo certifié donc loolu moo tax ñu ne tey armée bi buñ nar a dugal seen loxo ci loolu ñoom it ñun ñoo ko kii te sawar nañ ci bëgg nañ ko mais nañu leeral dëgg dëgg dëgg yan position seen degré de ni ñu waa naka la ak fan laa buñ ci intervenir lan def parce que mënuñu def lépp def lépp maanaam sol fetal ko gopp mu muntaar non non non <laughs> mun non wax dëgg yàlla moo tax faw ñu ñu ñu leeralal ñu uh-huh. te li tax loolu duñ ci mën a sori aussi uh-huh. mooy bu fekkee da am xalaat mu rafet xëy na ñëpp koy partage ak yow uh-huh. waaye bu fekkee dañoo jël xalaat boobu takku ci pénc bi te bañ koy wax nekkoo fa kenn woowu la ci aussi ñoo ñëpp ci may def ma man mën naa ne wax ne ci yow laa ko déggee. ah <laughs> information bi ci yow laa ko déggee ci rajo. Mm. que ni voilà gars yi def nañu. interministériel def nañu nangam ak nangam. alors que loolu bu amee dama nekk acteur dama gëm ne acteur laa ci mbir mi. Mm-hmm. donc du loo xam ne dañ koy rafetlu par contre li nga wax ci côté. Euh, xarale yu bees yi ñu dëkkee yooyu. Mm-hmm. ah ñu sant yàlla yaakaar gi ñu amoon ci ñii xëy na day yokk parce que nag bu fekkee dëkk kaw yi tey ñun ñi ëpp ci ñun amuñu téléphone ñu ëpp ci ñun amuñu fu ñu chargeur ñu ëpp ci ñun amuñu réseau ñu am loolu ba pare amuñu réseau ñu am réseau ba pare da ngay ñun bu ñu soxlawee xibaar à su moment war koo jot man dinaa xaar plus de soixante douze heures pour jot yenn xibaar yi am naa secrétaire général mu ngi dëkk Poroxaan commune de sa Poroxaan la dëkk euh, Kër Samba Gueye mais bu buy ootee dafay yéeg ci kaw garab oui bu ñu soxlawante dëgg ci kaw garab lay dem pour ñu déggante te ñaata la am boo demee Njaayaan Bagala Mor Loum mënta wax ra mënta wax ak man par téléphone dafa am heure yu ñuy dàkkante boo amee benn affaire ba filmer ko war ko jot di nga xaar plus de une semaine pour mën ci jot alors kooku tey bu la liggéey ne dafay def lu mel ni ko bëggee digital it compliqué moo tax ma ne xëy na am na yeneen projet yu ñu dencal balaa ñuy defal loolu mooy mm-hmm. daa ñu fexe ba ñu am courant bu doy am réseau bu doy am koom boo xam dañ mën a jënd téléphone yi ñëpp am xëy na bu boobaa loolu tax ñu loolu xaju fi moom fi ak nawet bi kat ah, kon jàppal na loolu tamit xaju fi fee nawet laaj bu mujj du ma ne sama laaju bopp la mais ñu bari dañ ko bëgg a xam. Mhm. mooy gis nañu nga sonn lool ci mbay mi. mooy mhm. wax ci mbay dañuy dañuy xam ne loo xam la ba lu miin la. Mhm. lu la booleeg bay mbay. baykat la juddu ji kaw gi bokk ci famille bi gën a néew doole ëppoon tool ci réew mi ñàkk mooy yu ma ko amee. maanaam maag samay waajur. am nañ suuf doon ay góor doon jàmbaar. waaye amuñu jumtukaay yu ñu bayee suñu tool ñuy dégg ay milliards yu bari te mos a yegg si si ñun ba tax ñuy tol tolaan fu ne ba ma doon ki gën a néew doole gën a sonn foog naa ne mécc yooyu xalaat def naa ko Mohamed mhm. def naa napp jaay naa bale jaay naa nen jaay naa xottu saako cirage naa maçon naa gardien naa nettoyage naa loo xalaatu def naa ko jamb naa carotte jamb naa soble ndax lan sonn ma ñëw dakaar gis presque lépp gongo te lu xew nit ñi di ko jooy ma xool dëkk kaw gi amul kenn ku leen jooyal ci wax sa xalaat laa ko commencé. ma simi sa mbugu nekk ci moo tax ñi gis tey ak yi menacé ak lu ne dañuy jaaxal dañuy sonal seen bopp mais mbir mi li ñu doon la. dañ ko woon nàmp te sama papa imam la ku soxla ci moom ngay ñëw ko benn anecdote tabaski sama waajur bu góor imam du mooy jiite. te da ngay yeew sa xar soora tër sam papa war a tër amu ko mu dem ca fa sàmm ya am ñëpp di ko xaar dëkk bi yëpp ñu ngi may dégg tey su may waxtale ay génn comme ni ñu seetaanee làmb fii wala match noonu la ñëpp di def dëkk Saalum dëkk kaw yëpp noonu lañ may seetaanee hmm. li ñu ngi koy ah, seede seen porte-voix oui c'est comme Alioune Dieng bu buy wax même chose <laughs> alors waaw boo defal gëstu nga xam ndax benn la léegi waaw non non appréciation moo joxe est-ce que comprendre hmm. sama waajur boobu hmm. am jafe-jafewu xaru tabaski dëkk bi yëpp di commentaire te ay grand la amoon parce que man amoon naa mag te boobu xam naa ràññee naa am ñaar rakk yu ràññee hmm. donc yooyu dafa bokk ci histoire yi nga xam ne boo ko dundee ba pare faw nga am noo mel hmm. donc tabaski day jot ci laay gën a xiif man parce que bu ñu rayut kenn duma jox ba ma lekk donc lii moo boole ak xeexal waa kaw gi milliards yi dégg nga ci wax ça va au delà engagement bi day xam ne xolo maanaam xolo ko lal quoi donc tax ñu bëri bari dañoo amee Basiru mi ni mu mel ci mbay mi ni mu sonnee ci baykat yi lan la dafa am ay tool ndax day doom yi baykat ndax daf ci am lu mu ci dund c'est bien nga nga nga am naa tool mhm. ah loolu moom ñu bëri ñu ngi koy kii am naa tool damay bay bayuma fu mu ne pour sama bopp waaye damay bay pour yokk emploi mën naa bay ba am ci lu bari bu mu paree dara du dugg sama poos dama koy séddalewaat te biir day bi damay fexe ba nit ñi di am dépense ci samay tool mhm. donc noonu lay bayee mais am nañ ay programme ak solution de mhm. bëgg nañu état wu Sénégal te samedi bii ñu daañu daje ñun ak suñu mobile. que ni région Kaffrine 32 communes fa nekk fu commission nekk fu seko nekk daañu fa taxaw ñu boole ñu ci commission yi comme ñu bañ ñu boole ñu ci parce que gis nañu état bii fi nekk. pare na pour dimbale baykat bi seen i yegg si si ñoom. te xam nañ ne ñu bari tey ñu ngi fi parewuñ pour loolu leer. loolu moo tax ñu commencé def seen i ndëgg sërëx ndëgg sërëx yooyu nag. bu fekkee ne dañ pare rek pour fakkastal ak nu ñu ko mënee man ak samay ndaw kaso yi dina fees. daañ ñu rey mais ren da ngeen gis lu ngeen mos a gis jiwu baax ku ko ci amul bul engagé projet bi jiwu mat ku ko ci amul bul xalaat a joxe xaalis waaye kuy jëm di tibbi suuf bu ko xalaat donc lu ngeen mën daañu ko def pour mbir mi leer ndax ne ñii dañ bëgg ko leen leeralal te lañ daan dund ay at ngeen ni menacé ren dina dakk te loolu lañ pare incha allah man ak samay ndaw pour ñu waxtaan ci ren faw ñi teg bascule ci seko yi mooy dëgg wóoluwuñu opérateur yi comme ni ñu bañ a wóoluwee dañuy jënd ak jaay la nañu tegal bascule yi te ñu ngi koy sant président de la république ak premier ministre am nañu dimbale ba commission yi nañ teg ay bascule ci buntu sako yi ku jënd sa gerte sa jiw na doon jiw jiwu baax mais nañ la jox rosi pour nga xam ne lii yaa ko moom waaye ñi ngi sàkku tamit ci état bi encore une fois mu dimbale ji ba nga xam ne mbirum suuf moom ñuy rey ñi am doole ñi am fit ñi ngi rey ñi nga xam ne ñoom ñooy néew gi doole ci seen suuf da ngay gis ab famille mu nekk ci diggund ko maan ba nawet jot nga gàddu mu xiin taw nga gàddu sa saak dem nawetaan si Dakar wala Touba. donc ñu gën a soo bay donc doo suuf soo bay noonu tamit bu fekkee ñoom tey jël nañ ay milliards ne ñu ngi koy segg jox ñu jiw ba pare waaye amulu jur boo xam ne ñun mën nañ koo bay parce que sàccum jur mu ngi bëgg a rey donc dana am it beneen jeextal boo xam ne voilà problème foncier vol de bétail ak rayante bi am diggante ki bokk ak ndey ak baay mooy diggante kat ak baykat nga xam ne benn lañu lan moo leen boolante ñàkk suuf je pense loolu code bi ñu doon woote keroog assemblée nationale rek la woon na coow li moom kay xanaa euh, ñu muñalante quand même xam nga Sénégal moom ci bind ci xalaat ñoo ko fi daax waaye bu paree ci trois lay jëm application dafay jafe vol bi ma la xam ni am na projet bu rafet mm-hmm. ñun bind nañ projet boo xam ne ay naa bi la tudd kookoo tegal mun na la ci àdduna bu amee saa ci jeex jox nañ ko képp kuy kilifa ci département bu ci région bu Kaffrine depuis jox ko ministre de l'intérieur ministre de l'élevage depuis temps mu président Macky Sall mu ngi ci turaal ko te ñëpp gëm nañ ne mën na koo lijjantee sàcc kii bii bi ma lay wax nii xeex bi am ci diggante sàmmkat ak baykat asumul daf ci def lu yéeme ba tax loo xam ne état mënula ko boppam baykat nit ki moo ko mënal boppam ñun fexe nañ ba koo xam ne dafa waroon tëj nit ñu waxtaan ak ñoom faj ñi ñu waroon a ñi gaañu waxtaan ak beneen famille bi ñu daa ko ñu bind lettre jox ko procureur commandant jàppale ñu ci ñu tey ñooy bokk di toog di naanandoo attaaya bu jur gi di dem kenn ku mën ko demal ko lekk sa juru diw jëlee nañ oto saar ñëw ba Dakar seet loolu bu fekkoon ne nit dañ ko tëj keneen ke ñu rey ko jafe day am ni merante ku nekk di xaar ëllëg sa jur yàq sa sa tool ba xeex amaat donc dafa am loo xam ne dañ war a dooreel yenn nit ñi yenn kuréel yi ba nga xam ne dañu mën a indi jàmm ci réew mi ba Basirou Ba maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay delloo gërëm di gërëm waa TFM ak képp koo xam ne mu ñu doon déglu. mbekk lañ amoon ci àndoon ak yow ci soir d'info fii lañu ñu cay yem Basirou Bala mooy président bu collectif Aar Sunu Moomel sant ko gërëm ko. sant leen yéen it gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ci kanam tuuti dina ànd ak yéen ci xibaaru timis yi ci TFM yal nañu yàlla doole jàmm.